ñu ngi leen di nuyu kenn ku si nekk si turam ak santam léegi nag bi mu defee loolu ba pare deuxième firnde bi mooy fukki secteur la fi présenté fukki secteur yooyu benn bu nekk dafa ànd ak fiche am cinquante personnes yi nga xamante ne moom la war a àndal mu def ko si fiche bi ñetteelu firnde bi mooy dëgg yàlla fekk nañ si mbooloo te xam naa ne dañoo xam a guddee aussi fekk fekk nañ fi mbooloo xam naa buñ teeloon na ñëw tuuti kon xam naa moom kenn fekk lu gën a takku lii waaye nag su ngeen gisee ñu guddee di ngeen ñu ko jégal parce que moment bi ñu toll la dañu tollu si moment de renouvellement du parti moment de renouvellement nag moo période de campagne électorale ñoo yem parce que des na tuuti si kanam ay quelques mois moo si des suñu candidat bi bis bu ñëwee di campagne ci biir réew mi su boobaa Sénégal gépp koy soxlaandoo te su boobaa di nga gis ku xëy di ko xaar balaa agsi si yow presque jant soo mooy moment bi ñu toll nii parce que ñëpp ñuy soxla moo tax il faut que compréhension am ngeen jéggal ñu ci retard bi donc su loolu weesoo soxna Faty Anta Xari kii Mbàkke dañ lay valider say secteur léegi nag léegi nag ginnaaw buñ ko valider ba pare dafa amaat beneen liggéey bu si des tuuti bu si war a mottaliku mooy fiche bu si nekk fiche bu si nekk dafay ànd ak bureau fiche yooyu sax moom moo waroon a jiitu sax nga xam ne bu ñu ñëwee fekk ñu remplir ko waaye dafa am retard retard bi xam naa suñu la sax mais joxe woon nañ kii xam naa Xaadim Mbàkke xam naa soo gis ne la ko jox Xaadim Taal dina la ko jox su la ko joxee fiche bu nekk. dafay am bureau bu koy jiite onze personne onze personnes yooyu fii nga koy jëlee si cinquante personnes yi pour la joxe formulaire bi rek di nga gis sax ni ñu koy ni ñu koy tëralee dafay am président vice président ainsi de suite secrétaire général ba si suuf ba onze yi mat su onze yooyu mate nag si biir onze yooyu nga tànnat juróomi nit mooy délégué yi donc secteur bu nekk day am bureau de onze personne ak cinq délégués bu liggéey bi ñuy def ñuy jeexee ba secteur yi ñu arrêté ko nga xam ne dootuñu taxawal ci benn secteur parti bi joxe na décision ne arrêté leen dañuy jublu nag ci taxawal section communale bu Touba. section boobu nag mooy ëmb seen secteur yëpp. su boobaa bu ñu taxawal bureau bi bureau section bi buñ ne secteur euh, Soxna Faati Mbacke. Anta Mbacke su boobaa cinquante personnes yëpp duñ leen soxla juróomi délégué rek lañu soxla si biir saal bi secteur bi andi juróomam. kii andi juróomam kii andi juróomam kii juróomam ba sa fukk mat muy juróom fukki délégué boobaa ñuy dugg si saal bi secteur kii noonu kii noonu kii noonu keneen noonu délégué yooyu nag ñooy taxawal le bureau de la section communale de Touba. su boobaa nag fii nag daal di clôturer wu képp kuy ñëwaati nag si parti mi nag fii yéen day jaar bunt bi tëju nag. donc vraiment li ma gis Touba ma j'ai vu une équipe soudée des responsables yoo xam ne yii doo xam ne kii ak kii maa ngi ànd ak ñii fu ma dem sax damay ñëw sax si ay kii sax ma ne fii daal benn laa fi validé ñooy taxaw sax di ma ñaan naan yokkal ma xam ne y a une solidarité fii donc bu ñu delloo di rendre compte am naa du ngeen ko fekk. te ay ndaw lañu yoon yi dañuy am suñu bët di xool di gis te bu ñu demee dañu nettali après dañ def rapport donc di nga bokk si ñi nga xamante ne dinañ signaler parti bi que ne que ñii ay problème mbooloo lañu. li si des nag mu ngi si kanam nag dañoo toll si phase su liggéey te léegi liggéey bi jeex xam nga ne élection présidentielle yi pour ñu nangu réew mi si Macky Sall xam nga soreetul. 25 février 2024 ñëw na di fi mu nekk moom nelaw amatul après lii moom terrain bi rek xam naa ne daal xam naa ne daal ñun tolluwuñ si ay promesse ak digganteeg yooyu xam nañ ne PDS PDS su Ablaye Wade la fii moom fii moom Ablaye Wade nekk pouvoir rek Ablaye Wade daanoo ku ma mën a fii moom PDS PDS ak moom. Touba Mbacké donc donc donc li ñu war a ñaan rek mooy te incha allah yàlla dinañ ko defal parce que sunu candidat bi dina ñëw liggéey bi su paree ba ñu taxawal kuréel yëpp ba pare dañuy wote congrès dañuy wote congrès te congrès boobu Karim Meïssa Wade moo koy présider suñ sa jógee ba tabb ko mu nekk suñu candidat février 2024 ah bu ñu yàlla joxe réew mi nag si boobaa defe naa ne ñëw bi dina wute ak bi ñëw yi si kanam ñëw yi si kanam dina wute ak bii xaw ma kant Sénégal de xaw ma kant senegal moo war a am xel ñaar naan ndax diw bu faloo dinaa am ak du ma waaye di waa Touba yéen yéen moom. yéen a téye PDS yéen a moom PDS Touba moom yéen a moom PDS yéen a téye donc fii kenn du fi ñëw sax di leen promettre na naan leen li yooyu fii amul fii moom yéen a moom PDS yéen a téye man nag maag sama naatangoo bi ñu dañu sant yàlla bañ ñu yéen Touba ngeen jëm dañoo sant yàlla. nga xam ne tey bu ñu faatu woon dañu ñaan yàlla ñëw fii ñu nekk si dara di fa yëngu ñu ne yéen ak li Sénégal réyee ñu ñu ëpp ay daraja nekk si parti bi ëpp ñu ay moyen nekk si parti bi ñu ne ñu yéen ñaar maak Adama Faye yéen la ñu yóbbu Touba. ñuy ñëw fii ngeen yombalal ñu liggéey bi ñun succès bu ñu fi am réussite bu mu fi am yéen te nag euh, euh, affaire yi mu ngi si kanam ni ngeen ñuy jàppalee fii si liggéey bi. ñu itam bàyyil ba suñu liggéey pare ay li naan jàppalante lay doon ay jàppalante lay doon tey jii rek tey jii rek tey jii rek parti bi daf ñu woo tey yu téléphoné nu ne ñu dana leen oto bu nekk à votre disposition oto bi sax war na war na donc wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla bi ñu yàlla indee Touba man dama dese woon a xam miin Touba mais li ma gis Touba yàlla naa fi ñibbisi si ak yéen dëkk si fi. donc euh, sëñ Fa euh, soxna Faati soxna Faati nga defaral ñu bureau yi na ñu defaral bureau yi euh, dina la yónnee fiche yi nga remplir bureau yi ak ak délégué bu si nekk comme cinquante personnes yi nga xool listam cinquante yi nga boole tur yi fi nekk ci liste bi nga boole ko ak bureau nga takkal ñu ko. nga dajale ko joxoon ko xaadim parce que dañ fi dellu soit bu mu paree ramasser yëpp yóbbu yàlla nu yàlla dimbali nag ba bis bi sunu candidat bi ñibbisi ñun ñëpp ak waa Touba ñu ànd teel a jóg aéroport. Euh, coordinatrice de l'entreprise libérale ñëw si Ndeye Ndiaye nekk ndindi bokk ak yéen dëkk ak yéen. ñëw si Jibi Ndiaye bi nga xamante ni tey moom la fi parti bi yabal moom ak Adama fay nee na liggéey bu ñu liggéey dafa bëri bañ def ko ñaari commission kon ñoom bu ñu fekkee ne waa Ndakaaru ñoom ñoo leen yabal fii ñu fekk fi ay responsable yoo xamante ni tey ñoom ñoo leen dal di ànd ñoom ko mel ni baabu Babou dakkantalee boppam euh, euh, Karim Wade ñu koy woo eh, ñu koy wooyee naaru Karim kon tey bu demee ba jël këram dafa permanence kon bu ñëwee si jotaay war nañ xam kan mooy Fatou Babou délégation bi nga xamante ni Astou Yaba Diop nekk responsable femme di borom projet bu ñëwee mun nañ wax kan mooy Astou Yaba Diop borom projet mi ngi nii toog kii nga xamante ni mooy Moussa Lo di ànd ak soxna Astou Mbacké nekk jàmbaar nekk député bii mooy ñaareelu yoonu député am kon bu ànd ak moom nekk loxo euh, loxo ndeyjoor ak loxo càmmoñam bu ñëwee ñu xam kan mooy Moussa nga ñëw si ki nga xamante ni mooy Moussa ki nga xamante ni mooy mooy wax sa xalaat. di défendre parti démocratique sénégalais nekk jàmbaar di liggéeykat kon bu ñëwee si jotaay war ne xam kan mooy Moussa euh, monsieur Lo nga ñëw ku mel ni Sidi Wilane dëkk Kër Ñang ñëpp xam waa Kër Ñang nekk jàmbaar nekk responsable Kër Ñang mu am ay xew-xew yu bëri yu fa amoon kon bu ñëwee dinañ leen wax ne jotaay bi Sidi Wilane Kër Ñang mi ngi fi ñu ànd ak suñu xarit suñu rakk sama doomu baay muy Jeng Saala mu nekk jàmbaar muy jang saala sax na nday joom ay jàmbaar de barki rek wane nañ ko si 8 mars bi ba ñu leen wooyee Ndakaaru dañ ne waa Ndakaaru dañ leen woo di dem ñu ne déedéet dañuy wane lan mooy un responsable de femme taxaw dëggal seen bopp woote ko euh, Mbàkke mu nekk jotaay boo xamante ni képp ku fa ñëwoon xam nga ne am nañ ay femmes yu diin ay femmes yu responsable kon tey bu ñu toogee si jotaay bi soxna Fatou Anta Mbacke ñëw toog wane mbooloo bu toll nii ñu war a dellu commissaire war ko fa dellu muy dix secteur am te xam naa liggéey na lu ëpp si mbooloo bi waa PDS ne dañuy demal seen bopp waa parti bi ne leen dem leen ngeen monté seen commission électorale dëgg na li nga wax Xaadim Taal PDS xañe wërsëg nga taxaw fulla ak fayda ak mat. nga taxawal ñi nga xamante ni tey ñoo si département bi ne leen bu ñu fontoo lii ba démocratie sénégalais am muy nar a am laay wax kenn du ko fooyee kon tey boo wootee lu mel nii mënul ñàkk ñu bañ a def jërëjëf. sant ñi may àndal damay sant nag sama waa koñ bii waa Mbàkke bari maa ngi leen di nuyu yéen a ma jiital yéen a ma bëgg bàyyiwu leen ma ma paralysé ngir seen i jëm barka Serigne Touba ba ma fi ñëwee ba tey maa ngi nii milieu bii. miin ngeen ko saamir saatam fii bayal bii miin na leen woote naa fi lu ne nii rek ngeen di def ma leen di sant di leen gërëm di sant nag ñëpp di sant ah kenn ci man muy bay kamara bay Camara maa ngi lay sant Baye Camara yow mi tolloog Abdoulaye Wade ay at nga dundoon ko wutal koy carte fu ne sama carte yi ba ma koy joxe yaa ci njëkk a jël jaayal ba ko say moroom ans boo xamante ne nii ni Ablaye Wade ay ab la Ablaye Wade at yim am yooyu lañ am nga jaayal ma carte yooyu Baye Camara maa ngi lay sant di la gërëm di ci teg maaka jon di ci teg euh, Assane Ndiaye Mbacke Bari maa ngi koy nuyu di ko sant Assane jàpp la nga ma lool Ndiaye ku ma tëye nga di nuyuwaat maaka mi nga xamante ne mooy sama lepp ci koñ bi sama kër lu fi lu fi lu ma mënta denc rek danaan ma indi manga indi indi soxna Fatima du dencal la ko ci magasin bi maa ngi sant ñëpp di sant Talla Sarr maa ngi koy sant Mbacke Bari Xur maa ngi sant Talla Sarr di santaat Adama Fall maa ngi koy sant Kourniss Daara Jolof sama kër yaay fa ma jógee ba ñëw fii mu taxawu ma lool lim jaay ci carte yi kenn xamu nu mu toll di santaat maam Ngor moom itamit sama kër yaay. di nuyu tamit kenn ci man muy sama taalibe bay Jibi Ndaw Baye Jibi maa ngi lay nuyu li ñu bokk ci sëñ ma sàmba rek xam nga man xam naa yal na ma la sëñ ma Massamba fayal ndax moom rek nga may xoolee ci koñ bi. di nuyu waat tamit Fallou Sall bu baax moom itamit jàpp na ci sama mbir mii ak bay daam Fall ku lim jumbaadoo matal ma ñëw nag ci sama responsable yu jigéen yi ci koñ bi ndax nag man duma dem tool di yées bayu ba tayit dama yor ay nit ñu wér li fortaatuwuma ko lii dama ko jaayante ay at lii tee na ma nelaw waxtu wu ne ndax ku say morom di jari bay boo sañoon da nga jër njëg ga baa nga jar lu ni toll ma yàgg def ci parti bi man mbedd di Touba miin ma ci mobiliser fu na gaara naa fa sama kaar yi jamonoy Amar Fall Baraye fukki kaar lañ ma aka ngaa man ci man aka ngaa ci man daba kan di nuyu yaa Maguette Diop mu jàllaleel ma ñëpp maire njiina ah maire Fat Samb soxna Ndey Diop maa ngi koy nuyu di nuyu sama naw lay gor yi soxna Ndey Mbàkke yi mii toog ñu bokk baay ba lay sa buri sëñ Baara rek ak Cheikh Massamba nuyu maam Faati Mbàkke moom itamit sëriñ Baara rek seex ma Massamba ma dëkk ak ñoom ci koñ bi ñu bëgg ma lool ndax lii damaa ko man ci ñoom kenn mënu ko ci ñoom waaw adduna nag dañ na booy ànd wala ngay def référence defalal xoolal say naw la nga ànd ak ñoom te man samay ñii rek kay samay référence sama adduna lu ma dox dox rek fii lay xool waaw kon nag may gërëmaat kenn ci man muy Khoudia Fall Koudia ja maa ngi lay nuyu di la gërëm sama responsable bi ba ma ñëwee ci koñ bi da nga doon xëñcu Ablaye Wade awa faal na la Ablaye Wade nga ne ñëw na ci koñ bi ñëw teg la ci samay loxo ba nga ànd man ba tey jaawale woo ma ci dara di nuyu waat bu sa Diop ah ki ma dalal nag ci mbake Bari maa koy nuyu bu baax di nuyu waat tamit. fat lay maa ngi koy nuyu fat lay genn golo gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko aka nga maa sagal ci mbàkke baar yi loo togg mu neex dangay ngay defee ne soxna Faté ci gën yaa fat sàmb sama doom jooju waaw lu ne rek ngeen di yenu di ko indi di nuyuwaat tamit ah kenn ci man koo xam na nag moom milieu bi xam nañ ko ndax moo yor sama ndeyjoor moo yor sama càmmoñ muy wali géey wali gay wali xare bi wali dawul dara ci man guddi bëccëg suba ngoon waxtu wu ne maag wali dawut sama dara lu naaj bu tàng tàng wali mooy samay ndeyjoor mooy sama càmmoñ barke Serigne Touba ma di ko beral waa Mbàkke baari nag ñu xamee ko noonu waaw di nuyuwaat tamit ah Fatou Kiné Mbengue moom it sama carte kenn mënu ko kenn mënu kenn mënu ko di ñëw ci man tamit nag koo xamante ne ah, muy Alima Kan soxna Alima soxna Alima moom sëñ Modou bu sa jàng moom sëñ Fallou soxna Alima jàpp nga ci man maa ngi lay sant di la gërëm di la bàyyeeg sëñ Fallou di nuyuwaat tamit Seexuna Jóob naa joob ku jàpp ci man la Seexuna Jóob ku dawul dara ci man la. xale boo xamante ne nangul na ma guddi nangul ma bëccëg nangul ma waxtu wu ne Seexuna Jóob maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm maan nag Mbay Faal Ndeene Njaay ngërëmul Ndeene Mbay Mbay Faal yow laa koy yóbbanti ndax dafa am rakkam ju gaañu munta ñëw looloo tax teewul ci jataay bi ku ma jàppale ci Mbàkke Bari ngi noonu ku ma téye ku ma jàppale ah waaw di nuyu waay gaaraasu daara Daam Jóob sama saabal bi kii nag dañ ciy taxawaat ndax corniche su daara Jolof fa ma jóge ba ñëw fii sama kër yaay ñoom ñii lépp a nga fa ñoo yor taximaan ya yor garage ya waaye kenn ñoru leen ku Abdoulaye Wade ku fa mën a tàllal seenu carte ku mën di doon ca àll ba lañ lay wax bëgguñu kenn ku Abdoulaye Wade Dame Diop maa ngi lay bëggee yaa ngi ñoo koo àndal ak ñoo àndal ñëpp nag ku ma fàttee na taxaw wax ma di nuyu waat waa Mbacke baari xur awa Samb ana nga ak aji Mbacke sama rakk ki ma bokkal ak baay muy sama caatum yaay ndax maa ngi nii man Awa Samb Mbacke Baari waaw Mbacke Baari xur fa anta indi nga ñu ndox mm-hmm. indi nga ñu courant indi nga ñu ceeb indi nga ñu lu ne mm-hmm. fa anta bis bi mënoo koy ñàkk am barke Serigne Fallou Mbacke ca kaw ca kanam ca kaw ca kanam Mbacke Baari lu fa am rek yaa ko fa indi barke Serigne Fallou Mbacke ca kaw ca kanam di nuyu am baaxam soo gisee ndax yaayam na maire maire ñang maire ñang yow lu ma ram Mbacke Bari yow la yow yaa dalal sama rakk ji yaa ko jàppale yaa ko di garam Abdou Diop yaa caare gay bàyyu ma kenn may sàmm Khadim Diagne Bass baa ngi ni lépp fi def kon nag maa ngi lay sant di la garam di la ñaanal di ñaanal ñëpp rek may ma tuuti dama am gonay PDS yoo xam ne dañ maa bëgg ànd man waaw si sooba tey ñi ngi fi ku ci mel na mut caan mi ngi fi jóge kër ñang Moodu li lépp moo ko def ak sama doom jee tafa mbeng ma bokk ak ma bokk ak maama maam sama doom yi dama leen di gërëm Baara Jaañ li lépp yaa ko bind Baara mini mi lépp yaa ko bind kon nag maa ngi leen di sant di leen di gërëm di gërëm nag kenn ci man sama séeri koko Baye Assane Dieng Baye Assane yaay mag mu sawar barke Serigne Bamba Baye Assane yaay janne xewut Baye Assane yow mii kuy luy fenn góor bu la seenee daw yow yaa baax a ah, maa ngi sant ñëpp rek di wax sama benn saabal mu wax ci nday joom sama doomi nday maa ngi lay sant di la gërëm nday yaa ka baax joom nday as góor nga barke yonent bi ah as yaaba Diop yow duma la wax dara dañoo bokk la joor saa xewar Fatma ngona la kub tooloy mujj di gërëmaat sama jabar ji naaru Karim Babou ñu bokk liggéey bi te ba ñu ma ci benn yoon. bëgg ma jox ma boppam di wax ak nday faatu nit ku baax nga kenn gënu la maa ngi lay sant di la gërëm yow sama rakk nga sa yaay dama laa dénk sa rakk dénk ma la moo tax bët bu rusul rek day daal di toj am na loo xam na duma ko man ndax xam nga xam naa maag yow la sama xarit nga sama rakk nga maa ngi lay sant di la gërëm ndeena yow aw ma lu may wax ci yow dañoo bokk ndindi dañoo bokk ndindi bokk ndindi ak mbàkke baari di benn nga jël sa bopp ak sama bos boole Ndéné maa ngi lay sant di la gërëm sama rakk sama xarit nga barke sëñ Bamba sama nit nga sama nit kenn gënu la yow nit ku baax nga. waaw léegi nag sant Moussa Lo sama waa ji sant naa la. mu nekk délégation boo xamante ni délégation parti démocratique sénégalais la soxna Fatou Anta Mbacké commissaire bi nee na fukki secteurs yi nga xamante ni moom nga am validé na ko si ndigalu liggéeyu. soxna Faati Anta Mbacke di waa kër ma Massa Mbacke di doom sëñ Modou Faati Xari Mbacke ndax tey dañoo def loo xamante ni luñ gëj a def tey mitin moo am ndax tey boo xoolee tonton Assane Diagne ngi nii nga gis ku mel ni Moussa Moussa Lo gis jàmbaar ak sama yaay wali soxna Ndey Jom tey Fatou soxna Fatou Anta Mbacke dafa wax si yow lu rëy Asiya Ba Diop gis nga nu mu la feeloo ne Fatou Anta Mbaka tey da nga ànd tey suñu bis bi dafa ala dawme ndax tey boo xoolee eh, commissaire Jibi eh, Jibi Ndiaye tey mu taxaw wax wax yi nga xamante ni moom la ko parti bi ak sart bi ni ko tëralee takkaloog ak Ndene Ndiaye ma ñëw sama xarit sama genn wàll muy Ndeye Fatou ñu ngi Touba aéroport di responsable Touba aéroport Ndeye Fatou ñu ngi kon tey su fekkee ne ma ñëw ànd sama xarit sama rakk muy Aline Badara Fall yore jeunesse bi tey dara du yomb bii nga xamante ne tey ku wax ak waxul xam ne réew mi métti na. ndax kii ba fii nekkee luyaas bi yokkuwul dund bi yokkuwul xale yi deewuñu si geej gi lépp lu ñuy wax mooy Karim Wade lii nga xamante ni moom la waa Parti démocratique senegal di ko liggéey fi nga xam mooy feebu PDS si Touba taxaw nañ ne retour da Karim Wade Macky Sall di fi def troisième mandat dafiy jugee na fi jugee ca kaw ca kanam jërëjëf. na dem na dem na dem na dem dem dem. na dem na dem na dem na dem